ay Mantoulaye Thioub Ndoye faram fàcce gi ak Mame Mbaye Ndiaye. kon nag El menes nañu ko door Yacine ak nag la xew sa mbuur mu di procès bu mbiri ci kii violence ba fa amoon sa tribunal bu grande instance. bu Mbour la ñu doon layoo démb mu mel ni kon juróom ci ay garde rapproché yu Ousmane Sonko jàkkaarloo nañu wax àttekat ba ak keneen ku ñu wax ne Oumar Ndione lay wuyo bokk ci euh, APR procureur ba nee ñaari at yu nga xam ne nii benn la ñu koy tëdd euh, loolee la sàkku ñu daan ko ñeenti wala sax ñeenti euh, ñi nga xam ne ñoo di garde rapproché yu Ousmane Sonko benn at juróom benn weer yu nga xam ne da koy tëdd moom Oumar Ndione loolee la ñu sàkku ñu daal di leen koy daan defence bi nag dañoo gis ne faw ñu bàyyi leen nañu leen bàyyi ndax nag li ñu leen toppee dara musa Abdoulaye Tine avocat bu gàddu Ousmane Sonko koy kàddoom ñu teewlu ko. lii ñu fi dégg ci biir ñu wax ko malgré nag li procureur de la république sàkku ñu gis ni moom tamit partie la au procès rek dafa sàkku mais moom àttewul li mu sàkku mooy ñu daan leen ñoom garde rapproché ñaari atu kaso yoo xam ne benn bi la ñuy tëdd sàkkuwaat ñu daan ki nga xam ni mooy Omar Ndione te waral lépp sooke mbir mi yëpp ñu daan ko atu kaso waaye juróom benn weeri lay tëdd yaakaar naa loolu moo fi tukkee ci xibaar tribunal bi nag ba mu ñu dégloo ñun avocat de la défense en même temps avocat de certaines parties civiles wane nañ ne garde rapproché bi ba coow li di am fa coow li am ak ñoom fañ nekkoon bokkul liberté provisoire bi ma sàkku pour ñu bàyyi leen ñu ñi ay nëgës ni ko ñu mën a ñibbi seen kër ba jour vingt neuf ñu mën a teew effectivement tribunal bi dani àndu ci du leen bàyyeeku gum mu ngoog liberté provisoire lañ doon sàkku maître Abdoulaye euh, Tall mu ngi koy xamle waaye nag tribunal def leen ko bañal euh, maanaam liberté provisoire élage waaw xam nga loolu moom décision tribunal lay doon procureur bi itam dafa am lu muy sàkku te moom moo leen teg loxo mais procureur ak lu muy am am doole yépp li luwaat di am doole yépp fekkul kenn kuy dox nekk ci njub ñu teg la loxo waxuma ko xeex dangaa di parce que xeex ñëpp lay arrivé waxuma ko jàppante nekkoo ci ci dëgg ndax ñëpp lay arriver ndogal la mais bu ndogal amee nañuy seet yàlla suñu ay propos yii fii ñun dañu jëkk a dénoncé li xew ci kii ba noppi ni waa ci kii am na nu ñu commencé provoquer histoire boo xam ne gënul parce que kenn bëggul ñuy nettali sa dumay bàyyi ci pénc mm-hmm. mais nag taxaw naan kii nekkul woon ca fa ñu doon xeexee kii nekkul woon ca fa ñu doon manifester wax ju yàqu la dañu doon xeex dañu doon jàppante ñi provoqué man personnellement bu may tuumaal ma ñu laa jëkk xëpp tuuma ji te dama mus di demander équilibre ci wàll bi kër ñu topp ñu provoqué histoire bi d'ailleurs moo tax am na ki ne ku dëkk ci ki ko xam mu ngi ci kaso bi comme ñoom garde reproche Ousmane Sonko yi mais quant à naan garde reproche Ousmane yi bokkuñu woon ci xeex bi waxu caaxaan la ñoom ñëpp ñu ngoon ca xeexoo ba doon laalante doon xeexoo ba mu nekk fitna procureur jàpp ni fitna am na ay plainte jib na am na ci ñu damm mais gaynde kan ma ki ki ki ñaari loxoom damm boo taxawee ni tam waaye euh, kenn damm ko wala wala ñu pa ñu bokkal péete ñoom ñoo ko damm waxu caaxaan la. ñu mu doon xeexam mooy gaz reproché yi damm loxoom. kooku moo tooñ wala tooñu mais moom boo taxawee nii xeexul woon wala xeex amu foon waxi caaxaan la parce que ko ñaari loxoom du damm. day doy waar ba donte dañu leen provoqué mais ñoom ñoo xeex. xeexoo am procureur jël dogal. demandé àtte bi ñu ngi xaar la mooy bàyyeeku ci juge bi bu boobaa kenn du am loo ci commenté mais it nag boo nekkee avocat aussi bëgg li neex fi nga féete itam tax nga interpréter loo xamante méngoowul ak li am sur le terrain ça pose problème. ñu jàll ci euh, bracelet électronique bi nga xam ne daanaka tàmbali nañ ko jëfee fii ci réewum Sénégal wàllum yoon ñu def ak jéego bu yees jàpp leen ni euh, ni ki démb la ñu inauguré benn centre de surveillance électronique foofu la sax la ñu koy defaree fa la ñu surveiller mbir yëpp mu dugg ñu sanc ko ci réew Afrique soo jant Sénégal la ñu tànn ngir samp ko fi mu mel ni nag euh, léegi boo defee njombe mënees nañu laa bañ a tëj waaye nag faw ñu takkal la lam boobee nga xam ne mooy tax ñu nga féetee boo ko jéemee dindit ñu mën laa identifier Abdoulaye Abdou Aziz Sow Madani Mariga ñoo demoon sa ndaje lii lee ab tëralin la buy tax ñu mën a contrôler bu baax ñi ñu takkal bracelet électronique ak fu ay mënta ne bracelet électronique yi mun a wàññi bu baax lim bu jéggi dayoo ci nit yu nekk ci prison yi. dafay permettre en même temps nag ñu mun a libérer nit ki ñu mun ko bàyyi muy dem di dox ay soxlaam. tout en restant à la disposition de la justice. ci moyenne ci Sénégal xayma bi toll ci douze mille cinq cent ci ay prisonniers junni ci bracelet yi teew na yeneen junni ñu commandé leen. dina nekk deux mille bracelets électroniques yoo xamante ni dinañu commencé waaye loolu nag magistrats yi yi ñoom ñooy décider. des milliers de personnes incarcérées dans les prisons vont retrouver une dignité. ñi ñuy toppee détournement deniers publics mbala sax délit douane yi duñu bokk ci ñu mën a joote ci bracelet électronique yi bracelet yi di tax nit ci mën a génn prison te saa yu ko yoon soxlaa mu wuy si yenn saa jàpp nañu ne bala ngaa purger peine bi yëpp war nañ la mën a defal bracelet électronique pour joxaat la beneen chance ñun support technique bi accompagnement bi mooy gunge leen ah su dara yàqoo ñu ñëw jàppale leen pour defar ko ak euh, connectivité yi su doxul ku ñu ko takkal nga koy jéem a yàq wala di ko dindi dañu lay jàppee comme ku rëcc ci prison te lu mu néew néew néew juróom benn weer kaso di nga ko tëddaat. wala moom lu na li bokk na ci li xam ne mën na féexal kaso yi na mu feesee. bon féexal kaso ñun ñëpp ci ànd. c'est pas parce que prison nañ ko tuddee bien sûr dañ lay privé. Mm-hmm. ay ay ay liberté ba tax. ñu jàpp na ne euh, que waroon nekk ci yenn condition am na ñu war a nekk ci yenn condition am ñu war a nekk ci yeneen condition attention parce que aussi prison lan moo jubluwaay maam Mbaye Ndiaye dafa def infraction yoon di ko topp ñu nekkat bërëb bii dañu koy indi dañ ko fi indi pour yaree ko fi parce que tamit prison loolu lay jariñ pour yar nit ki la ne ko kat dañoo décider pour dund en société lii ay loi yoo xam ne képp ku ko transgressé jàppal ni dañ la war a teg ci yoon léegi nga jël nit ki indi fa mais lan la prison di jël au delà de yar nit ki pour nit ki mën a rëccantiku la mu defoon nit ki wara a mën a dellu siwaat ci société bi bu génnee foofu mais tamit ci euh, jamono ju muy nekk foofu tamit mu xam ne ne fii kat da ko fi nekk pour li nga xam ne moom moo ko def te waru ko def. alors pour ñu corriger ko la oui pour mu corriger ko mais man bracelet yi dama ci am jeexi jaaxam. ndax lan xam nga lu tax waa ji mi ngi wax wax ju am solo nee na dañoo ñëw pour dimbali gaañe pour bu ñu amee yenn jafe-jafe kat. ñu mën leen a xool ni ñu leen ciy dimbalee bu amee problème connection bi yooyu waaw koo takkal mu am problème connection kooku mënul dindi yëf ya dem yoona matériel la rek. waaw loolu laa bëgg wax. matériel day paat mais si kaso bi dañuy rëcc. non waaw mais matériel day paat mieux vaut nga nekk ci biir kaso bi comprendre nga ñu yar la fa moo gën ñu bàyyi la encore ne la léegi demal parce que pourquoi suñu prison yi dañoo am problème autant nu ñuy tabaxee ay cimetière autant nu ñuy tabaxee ay building administratif noonu nañu waree aussi tabax ay prison parce que prison aussi dafa am solo ci kaw ñi nga xam ne ne nag dañuy def yoo xam te ne nii defuwul maintenant jël nit ki tëj ko ci longue détention boo xam ne après pour bàyyi ko deful dara aussi loolu problème la. voilà El ñu bëri jàpp ne kon nag euh, euh, bracelet yi dañ ko bëgg a dencal borom barke yi nga xam ne peut-être bu ñu leen tëjee kaso dana ñaaw euh, ñu takk leen bracelet yi dinañ xam ñun dañ koy camoufler mais baadoola bi ñu bàyyi ko sa kaso ba tëj ko jàppee wu ko noonu. damay delluwaat ci historique bi affaire bi parce que euh, bracelet électronique dafa yàgg a doon demande organisation yu société civile surtout ñu nekk ci wàllu droit de l'homme dañu yàgg wax ni kaso yi fees na euh, dégg nañu ba tàyyi ñuy demandé ni nguur gi war na def ay investissement pour ñu amal bracelet électronique pour mën a wàññi ñu nekk ci kaso yi ak ñi nga xam ne xëy na sax euh, yoon tegu na ci seen kaw mais mun nañ leen mun nañ leen a may afia kon bu ci nguur gi defee benn jéego dañ koy saluer parce que man du action bi mais demande bi ko jiitu woon plusieurs fois ay at yu bëri bëri man jàlle naa ay éléments au journal ñuy wax nguur gi dafa war a indi bracelet électronique bracelet électronique tey bi ñu ko indee bracelet électronique nag euh, foofu nag day dex comme méthode mhm. comme pièce d'identité puce lay am boo xam ni ki ñu koy takkal du ko mën identifier ki ñu koy takkal mënut a fexe ba tàqali kook moom ki ñu koy takkal saa bu leen neexee ñu localiser ko. Mm-hmm. non moo am non loolu mooy réalité technique xam nga nit. moo jubadi mais machine jubadiwul. mais mais machine. nit moo jubee alaaji bi nga ne machine la xam nga machine. machine mun na koo mun na koo. waaw bàyyi waaw waaw non <laughs> d'accord naa non dafa ma ko wax di ko yokk rek waaw ok. xam nga xam nga tey tey. ki gën a dëng ci àdduna booy jinne fan la ñu ko jàppee. bi mu génnee ak moto ak simulation yi mu def yëpp. fan lañu ko jàppee fan lañu ko jàpp malgré jàpp nañu ko. Mhm. mais sakkaa ki ñu takkal bracelet électronique mënut a fexe ba du ñu ko localiser. bracelet électronique ñun Sénégal bu fekkee mën nañu njuuj njaaj mais ki koy liggéey di la ko jaay am na garanti bi mu la koy jaayee pour nga takkal ko nit ki. Mhm. beneen bi ci des mooy dafa am méthode bu muy doxee ci wàllu télécommunication. ay xale yu xarañ yoo xam ne seen yoon nekkul ci justice seen yoon nekkul ci ki ci kaso bi dañuy contrôler situation bracelet yi nga xam takkal nañ ko kenn ku nekk. Mhm. avantage bi ci nekk mooy du ma ko natt ci kenn ma ko natt sama bopp par man ñu teg ma loxo ci loo xamante ni bi xëy na mun naa bañ a nekk ci ndungu sin bi mais buñ ma buñ ma buñ ma mayee affaire takkal ma bracelet dina ma tee dem tool. Mhm. dina ma tee jaay dina ma toppatoo tee toppatoo sama élevage. mais kon avantage la jàpp naa ne acculé boo xamante ni bi man de. dama koy saluer parce que dama ma koy saluer mooy ëpp na fukki at nangam. ñoom bu Boubacar Ba From Justiciable. ñoom kii Seydi Gassama. ñoom Alioune Tine ñëpp dañ doon demander lu mel noonu. pour am ñenn ñoo xam ne aajowul ñuy fanaan ci biir mais mën nañuy fanaan ci biti te ñu leen di contrôler léegi lañ doon demander bu fekkee yokkute am na ci voilà loolu c'est une bonne nouvelle jéego bu bees sax bu ñu def ci wàllum yoon te nee nañu nag képp ku ñu jàpp bu nga tikk ko ba rëcc jàpp ne bu ñu la jàppee juróom benni weer la ñuy dolli boo ko jéemee tekki sax la boo jéemee tekki juróom benni weer la dolli ci sa ci sa ci li li nga xam ne moom la ñu la daan ñu waxtaanee njëkk yi nga xam ne moo jëm ci wàññite gi coow mu ngay am ba léegi ndax commerçant importateurs yi mer ba futti la ñu def nee nañ soo moytuwul dañuy boycotté importation bi ñu daan def jëm ci wàllum soble bi ndax nag nee nañu njëg li njiitu réew mi ko fixé si euh, dix mille cinq cent alors que ñoom ni ñuy def baam soble si boo ko xayma dina yegg si onze mille cinq cent jaay di perte ñoom nee nañ ci boppam xel xalaatu ñu ciy doxee ndaje la ñu woote sa marché Thiaroye euh, ndaw euh, ndaw président bu collectif national des commerçants importateurs ay kàddoom la ñuy teewlu dafa am dogal yoo xamante ni dañ koo jël bi ñu koy jël nañu commencé woon ca commencement ba àggale wuñ na ndax commencement ba dañu owoon dañ ñu ne bu fekkee ñoo ngi tëral prix yi dañu woote kenn ku nekk ñu wax frais yi lu mu doon ñu soog a tëral prix bi ñu tëral prix nag woowuñu kenn commerçant yi dañu ñëw wàññi mais la ñuy perte nañ leen ko jox kon ba ñu bañee mbir mi fi ñu jëlee moom nañ ñu wax ñu bañ bañ a tey benn soble waaw ñu indi période Sénégal du ñu ñu indi pomme de terre. solution bi solution bi wax ñu wax ko ni ñuy seree lépp nu mu toll mu wax ñu marché bi ñu jox lu mën a jaay lu bañ a daan bañ a jaay sax dañu teye ko waaw. bañ a importé du ñu indi ab doom à partir de tey maanaam du ñu importé benn doom. voilà euh, moom lañ doon wax ba tey jëm ci euh, njëgu jënd meex njaay mi Mamadou Fofana coow mu ngi am ba léegi ndax importateurs yi nga xam ne ñoo ngi ci importer soble si nee nañu soo moytu dañuy boycotté ndax nag 10 500 la ñu ko fixé te ko boo koy xayma 11 la. xam nga gaañ lu ñu war a doxal d' abord. gis nga gis nga commerce dafa nekk loo xam ne lu barkeel mais gis nga élage mi ngi koy wax démb boo ci bëggee jàpp na ne yow da ci war a am bénéfice boo xam ne ne fa nga war a jaaree nekk milliardaire coûte que coûte loolu aussi problème la yow munoo nekk sénégalais ñuy wax pour nga dimbali sénégalais yi nga xam ne ne seen loxo yow importateur nga yow am nga moyen yu la mën a may nga dem jéggaani encore que sax balaa ngay jéggaani xam nga man tamit il faut ñu am tuuti patriotisme économique tamit mhm. jéggaani Sénégal loolu moo war a progressivement dakk ndax li ñuy bay fii ñaata nit a fii bay yow gisoo ay nit ñu bay seen soble ba pare dindi ba mu nëb ñu ñu gas suul waaw léegi balaa ngay importe lu la teree nga dem jënd ci soble boobu jaay ko sénégalais dem jënd ko ci ki nga xam ne mooy baykat bi mu gis ci boppam parce que la muy gas suul pertement la tey lu tax munuñu ñi ngi naan woy soble tubaab bi moo gën mais li ngay importer ji soble tubaab bi boo xoolee expérience bi ñu am ñoom fii suñu baykat yi élage am nañu expérience boobu. Mhm. buñ leen ci dimbalee ñu produire même soble. ah oui kon donc man ay non du ma wàññi du ma yokk loolu mënuñu ba ñu yokkee soble boobu ba léegi lañ ca am ca bénéfice lépp ñu bëgg a taxaw fii ne wéy ci benn yokk bii nii nii nii nii nii fii nañuy jaaree daanu ba foofu nañu xool yàlla ci li ñuy wax tamit. alors élage wàllum. Euh, euh, te am yërmande nee nañu soble bi wax fa dëgg njëg li moom arrangé wu leen. daañu ko wàññi de. am yërmande gis nga njëg gi maam. du ma ci ànd kenn kenn te ku lànk bëgg ko wàññ dinaa la reetet mhm. parce que nguur gi jël na ay motuwaay nañu def li nguur gi wax te def ko faas mais mënuñoo am yéene bëgg wàññ wàññi yow li ñuy wax baadoola du yow moromu baadoolaam buum mhm. ñu ngi da ngay comprendre dëggantaan sénégalais bi ni muy traité beneen sénégalais bi mais est-ce que kon di nga am sax nguur gu la respecté mhm. yaa xeet mu lan tey fi nekk ceeb ceeb la ñu wax diw suukar Euh, meew soble pomme de terre yooyu la ñu cité pourtant yàpp bokk na ci président lib mhm. xoola gars yi bëlëf nañu ba génne ci yàpp te yàpp dafa war a wàññeeku parce que bokk na ci président lim yàpp nag ak yàpp xar bu nekk saxal nañu njëgam mais fi ne fexe nañu ba bëgg koo tëb tëbal il faut ñu dellu soit di su demee xool lim nombre liste yi nga xamante ne bi nee nañu dañ ko wàññi daañu wàññi le président wax nañ ko wàññi. parce que ñun du politique moo ci intéressé mais ñiy consommer ay sénégalais lañu sénégalais dañu sonn dañu xiif dañu jaaxle dañu amul wéeruwaay waaye jéem leen a ànd ak sax nguur gi sotti leen sotti pour yëf yi gën a woyof ci sénégalais yi. man mhm. du am kenn koo xam ne dinaa la valider li ngay wax ci xeex bi ngay xeex bu fekkee la ngay xeex wul ak askan wi nguur gi joué wu leen da leen woo ñëpp toog. ñi ñi teewal commercant yi ñi teewal consommateur yi taskatu xibaar yi ñi ñi dem ak seen jubbu bopp ñu leen di wax société civile. Mm. ñoom ñëpp a teewu nguur gi jël dogal ñu ni mën naa nekk. ñu taxawal ay commission technique. vraiment ngeen étudier ko seen. pendant des ay ay fan yu sakkan ba ñu xool ba xam ne lépp mën naa nekk ñu ni kon nañ leen jël dogal bi la ñu la ñu sàkk woon sax ci président mu wàññi ko wàññiwu lu toll noonu daf ci cofaat ni bu mu ëpp maanaam ko bàyyil na leen chance. mais yow Sénégalais bi yow baadoole la taxaw iñaan ci beneen baadoo la ba nga xamante ni bi topp sa bénéfice rek yow foo doon am 750 bénéfice nga ne 750 yi 15 bi ci wàññeeku sa yoon ci souffrance ñu ci des. te bénéfice sanction rek. Hmm. loolu am solo ay sanction combat bi dinaa ci ànd ak nguur gi di début à la fin parce que li nga xam nguur gi askan bi laa àndal. parce que askan bi mooy consommateur. bi nga xam ni moom la ñu wàññil te moo mënatul a jënd li ñu koy jaay ndax dafa metti ñu waxtaane wàllum euh, njàng mi sa université Gaston Berger bu Saint-Louis collectif bi ëmb étudiants yi UFR euh, sat ñoom nag ndajam assemblée général la ñu woote woon den ñaawlu euh, waa daara ja anam nga ni organiser examen yi nee nañ metti na lool nee nañ étudiants yi bu ñu sukkandikoo seen i kaddu nee nañ nag jamono ji situation yi autorités yi nam situation ba nga xam ne autorité moom la ñu leen teg faw ñu xoolaat ko lu ko may examen yooyu xel xalaatul ñu siy participer Amadou Ndiaye seen kaddu kaddu yi étudiants yooyu ñu teewlu ko Babacar Niang Jeylani Sarr lu tolloog si lu ëpp si semaine nañu nii si UFR e bi cours amu fi TD amu fi examen amu fi parce que administration bi fi nekk day organiser ay examen nu mu ko neexee dañuy def taf ay résultat deux jours après ñu wax nu nan dem def examen rattrapage loolu bindu ko fenn si texte yi bindu ko fenn amul si benn réglement boo xamante ni joxe na ko bi loolu amee dem nañ si administration dem nañ si ñi nga xamante ni mooy instance fi ñuy waxtaanee lépp lu jëm luy lu jëm si wàllu njàng njàngale mi si université bi saisir nañ leen te ñu ngi jàpp ni bu ñu demee si ñooñu peut-être dinañ am ay solution mais suñu amul ay solution si ñooñu ñun dinañ dem topp administration fi nga xamante ni mooy fi mbaxane doone benn dinañ dem si autorité judiciaire bi ñu saisir ko pour mu ñëw si situation bi pour jël décision mën nu fi nekk ay doomu jàmbur lañu ñun dana am ay famille dana ay parents ñu mën nu indi université pour ñu jàng pour ñu am ay résultats administration bi dunu teele chaque jour loolu dun ko nangu tey duñ ko nangu gannaaw ndar ñu doxantu ba sa Thiès Est foofee commune ba bëgg-bëggam moo di CM ba ñu daal di koy tabax sa na mu gën a gaawee ndax projet la bu nga xam ne ni euh, maire ba ci boppam euh, mu ngay xam le ne euh, ba fii jëfewuñu ko la ko waral nag mu yéex lool mooy approbation ministre des sports ba nga xam ne moo ci teg ab tànkam moom Yankhoba Ousmane jaañ dafa gis ne moom maire ba retard boobee yëpp la ko waral moo di peut-être diggante bi diggante CM bi ak champ des te loolee nag warees naa mën a ñàkk mën nañ leen utal beneen site lu ko nag ragal nañu ne kon projet CM boobee dañu koy jël yóbbu ko ci beneen commune loolu la ñuy ragal Ousmane Diagne maire bu euh, commune euh, Thiès Est ay kàddoom. Euh, le directeur d'école mu ngi am yu mu ay complainte yu yu mu wax yu xamante bi nii lu mu bëgg wax na fi waxu seem ma ciy profité rek di wax ni ba tey seemu R100 bi moom jotaguñu autorisation bi alors que fañ ko war a tabax mu nga taxaw seem la boo xam ne agence française de développement moo koy financé mu nekk seem ultra moderne yoo xamante ni amaguñu sax Sénégal donc ci càggan ñàkk joxe autorisation de construire warul tax ñu délocaliser seen boobu loolu moom bu ñu ko defee xam naa ni xale yi du ñu ko baal parce que heure bi waroon na fekk ñu pare ci loolu bay wax waxu seemu Cité Lamy bay wax lycée wu Cité parce que koñ bu dee ni Cité Lamy war noon na am seemam ak lycéem bu yàgg yàgg yàgg yàgg déjà directeur nee na 969 élèves presque 1000 élèves ñooy jàngee ci école bi loolu ku ko dégg nga xam ni lii école bu mu ndaw donc ñuy wax ñaaxaat rek suñu autorité yi dont le ministre des nga xam ni moom moo war a signer autorisation de construire bi ñu doxantu gannaaw Thiès Est sa commune bu Bunkiling COP euh, local la ñu fa woote COP local nag la muy wundu la jëm forum la bu ñuy waxtaanee nees mën a def ba aar àll ba nga xam ne moo fa nekk ndax gis nañu kon mu ngay tàmbalee euh, maanaam dem loole ci boppam nag la ñu bëgg mu daal di fay euh, yem ñu daal di koy dakkal ndax àll bi lu fa am solo la COP local boobee nag Kaba Fati point focal bu plateforme régionale de Sédhiou nga xam ne moo ëmb ñii di yëngu ci wàllum justice climatique ñoom ñoo ko fa ñu teewlu sa ay kàddoo moom Kaba Fati. pôle Casamance bi ñu lëkkaloo benn réalité naturelle sur le plan des fi environnementaux moo war tey ñuy tuddee fii suñu pôle Casamance. tey organiser Bunkilim parce que méta bi lu gën a lu ñu gën a gis mooy mooy suñu àll bi vraiment gor àll bi ak tey àll bi lu mu nekkee di jeex kon loolu ñu xam ne daal suñu département Bunkilim réalité la. rawatina sax Casamance bi yëpp parce que raison boo jël ci Casamance tey dangay fekk bunki li muy jooyee fii boo demee jigéen Ziguinchor loolu lay jooyee kon loo moo war ñu indi fii waxtaan ak askan vraiment autorités yi ñëw jàppuñ ci loolu gunge ñu pour que communauté bi ñu gën leen yee ci seen responsabilité par rapport li ñu war a dundal àll bi. COP local boobee sa bunkiling tax na ñu waxtaanee jafe-jafe yi nga xam ne euh, ñu ngi koy jànkonteel foofee ci wàllum environnement lépp nag nekk si jàppandalug maanaam koppar ba financement ba waa fondation Rosa Luxembourg bu bureau de l' Afrique de l'Ouest nga xam ne fii ci diwaanu Dakar la ne Bruno Sonko ay doom ñu teelu ko Ibrahima Diallo. lu ñu motiver mooy nu mu ko waxee sànq mooy nu mu ko waxee valeur ajoutée maanaam euh, ñun gis nañ que ñoom lu ñuy def wax dëgg yàlla askan mu ngi siy jëriñ. te tamit euh, question boo xam ne bu am solo la si jamono bi ñu toll donc euh, euh, ñu ngi rencontre ay problème yu important si àdduna si mbirum climat changement climatique environnement donc pour ñun daal si fondation bi lu am solo la moo tax ñu daan ñu ànd si partenariat bi ak ñu ngi si ñu ngi si liggéey depuis ñeenti at donc xam na gëm nañ ne que lu am solo la donc ñu ngi ñaan yàlla daal partenariat bi continuer question bi xëy na ñu bëre xam ñu si lu bëre donc jàpp naa ne que liggéey sensibilisation war na continuer waxtaan ak askan bi am na sànq ñu ne waxtaan ak ndaw yi mag yi donc question yi am solo la war neen continuer di sensibiliser nit yi autorités yi suñu mbokk gambien ak du kese mbokk gambien àdduna bi yëpp. askan wa yeewoo sa njëng major diwaanu Kébémer la féete ñoom nag la leen metti moo di ara national bi ñu bëgg yaatal foofee joxaat ka pàcc wu yaatu sa suuf sa loolee moo leen metti ndax nag nee nañu euh, dañu ko bëgg rek def benn projet bu nga xam ne nii euh, daanaka euh, fas yi ñoom ñoo fay nekk ak nag yenn activités yi ñuy yëngu loolee moo metti askan wa ndax nee nañ suuf si mënees nañu ko jëfandikoo ci wàllum mbay wala leneen ñu teewlu sa gàllaay silla sunu ndaw ma ñu nekkal foofee sa diwaanu Louga askanu njëng maajoor jaw meloon ni ku jom xare ndax communiqué bi ñu ne ci rajo bi lañ ko déggee ñu nar a liggéey ngir clôturer seen tool yi ñu ne dañ koo bëgg a yokk ci ara national bi ci Kébémer ci lu ñu yëgul tunaali bi lañu am ci la nuy bay di ci dund di ci dundal suñu fas yi di ci dundal suñu njaboot gi di ci fay courant di ci fay ndox lu ci ci waay góor ba gar duñu ko nangu man la bu ñu rëyil ba nu dee ba jeex duñu jël suuf njaga jaw moo yor kàddu collectif bi ñu teg ngir aar tool yi njëng maajoor ba Kébémer bañ ko soxlaa ni dañ koy jox ñu ko dëkkee dañ ko ba ak ñoom ñoom ndax dëkk gën a for bay waaye li nga xame seeni si moom lañ dese muy benn waar boo xëy ne mi ngi commencé fii ci aara bi ba daaray sodd ba turee mbay jàpp njeng jaww jàpp sanc muur jàpp maroneen nañ ñu ko fi bàyyel ngir yàlla ñun fan leen joxoon dañ cee àndoon ñoom yaakaar ni sunu njariñ ñefeere fas ba nga xame seeni boo ko defee ci tool sax mu dund buñ ko fa soxlaa dañ ñu koy jaay kon tey soo fa demee di fa sàkku leneen buñ la buñ miiree dañ a baax ciy fii la ko fekkoon du ma ci wax mais dafa dégager responsabilité moog la sous préfet ki yor kàddu ndaw yi nag baat yu yërëmtalu la yónnee njiitu réew mi moom na ni day day day pour jeunes yi kon léegi ñun fii nii lan la ñu fi créé bërkaati demoo njaay la waa Mbéngeen plus de quarante cinq personnes dee ci géej gi ndax lan ñàkk lu ñu liggéey fii su ko bëggee nañ nañ nañ ñu ko wax ñu dem dugg ci gaal yi dee fa mu ngoog ara bi nee nañ ara la ñu bëgg a yaatal moom du fa fana askan wa ne mukk du sa daal suuf ñoom ñoo ko gën a yittewoo xam nga lu tax parce que ay dëgg biir da cee ne ak askan goo xam ne ne dañoo taxaw pour lu jëm ci seen bopp jëmmal seen bopp ci liggéey ñàkk jaruñu ay ndaw bu ñu taxawee ne la sa waay suuf si mënoo leen ko jël parce que dañ fa bëgg a bay mënoon nañ dem defi leneen mais dañoo taxaw ci ne dañoo bëgg a liggéey araad lan lay lan lan la fay def. Hmm? dawalinu fas. encouragé carte. tàggat fas ya kese amul leneen. parce que loolu carte la jëm. ñu fi nekk di ara ak ñoom seen nangam ak nangam mbirum carte rek lay indi waaw mbirum carte ñaata nit a fi joué carte est-ce que tey jii nii ay dawalu mu fas war na tax askan wa ci seen lu ñu nga xam ne seen question de survie la moom nañ ko war a jëndee et puis man li ma métti ci élément bi nee na maire bi déeyu ci yàbbi sous préfet ba toog di seetaan waaw loolu mooy lan ci ñoo xam te nii yéen ay représentant kii représentant ñoom ñaan ñëpp sax ay représentant état ngeen yow maire bi xanaa bu askan wi di xeex ci ne mankat dañoo bëgg a liggéey yow kay nga war ci sant yàlla alhamdulilah gone mënoon nañ fa nekk di agressé mënoon nañ fa nekk di teg ndawal di di sonal askan wi mais na la non suuf si doo ko joxe parce que dañ ci bëgg a bay amoon na suuf joo xam ne joxe nga ko ñu nangu ko parce que ay dëkkuwaay la dëkkuwaay kenn mënu ko jëndee ak leneen. dafa bokk ak doomu aadama. kon lu tax autorité ñoom ci seen bopp ñu war a encourager ñuy yokk ay ara pour ay fas ñu fay dund ak ñoom ñoom léegi bu ko defee ñu lan ñu dem yalwaane. doy na waar alors loolu la ñu may El ñu waxtaanee laata ñuy ñëw ci ci mbirum ara googu ci wàllum koom gi fii ci réewum Sénégal ndax nag mbay meex koom gi yaakaar na lool ci wàllum koom fii ci réewum Sénégal waaye nag démb rapport bi nga xam ne FMI daf ko génne nañ ko naaw ah, mbas mi gis nañ ne koomuk Sénégal daal fu mu nekk nii taxaw na nekk na ci ah, taxawaay bu nga xam ne nii ah, ëllëgu Sénégal mënees nañu jàpp ne dana jàppandi donte ñu bëri dañuy taafantaloo guerre russo Ukraine ukrainienne bi waaye nag nee nañ loolee du si dara ëllëgu Sénégal ci wàllum koom mën nañ ko xaarandi lépp jàppandi loolee nag waa FMI ñoom ñoo ko xamle chef de mission bi démb gannaaw ginnaaw rapport bi jàkkaarloo nag taskatu xibaar yi ñu ànd a Cheikh Younoussa mission fonds monétaire international bu nekkoon fii ci ndakaaru di xam ne nii rek donte sax ay jafe-jafe am na ci adduna bi waaye situation soxol économie bu Sénégal baax na lool. ngir 2022 croissance bi mu ngi ci 4,7 pour cent waaye inflation bi moom mooy ëpp na sa pour cent. ci lu soxal atum 2023 bi nee nañu tamit perspective yi baax na ci lu soxal Sénégal euh, euh, recettes yu baax yi dina tax ñu maintenir déficit bi boru Sénégal bi nag kawe na lool mu ngi toll ci 75 pour cent ci PIB bi waaye nekk na bor bu ñu mën a soutenir wante waa FMI di sàkku ci Sénégal ñu jël ay mesures ngir fogandiku ci yeneen choc yu mën a ñëw. On a aussi euh, encouragé de doubler. ñu ngi encouragé gouvernement bi mu gën a jàppale ménages vulnérables yi maanaam néew ji doole yi war nañ ko jël en compte ci budget bi di ñëw ngir gan leen jàppale. façon à pouvoir Euh, mission bu FMI nekkoon fii ci Sénégal di ñaax gouvernement bi tamit ñu fexe ba finaliser code soxol marché public yi. El ban jàngat ngay def ci euh, waa FMI seen taxaw seetlu lu ñuy def ci koomub Sénégal. am nañu jumtukaay yu ñu defee ay xayma. xam nga dafa benn benn benn benn discours bu ñuy faral di tenir ci institution financière yi nga xam ni ñooy accompagner Sénégal ak yeneen réew ci àdduna bi nekk ay institution internationale yoo xamante ni bii dafa am rôle bu ñuy jouer ci économie gu Sénégal discours bi mooy foog ñu dàq leen foog ñu jële leen fi foog ñu def nii foog ñu def nii loolu discours bu yàqu la tey boo demee Qatar bi dalal mondialise yi la fa nekk ci wàllu infrastructure bu ñu la génnee lu ñaata waa Qatar ñoo participer ci réalisation chantier yi est-ce que am na ci d'ailleurs fo question boobu ngay poser nga xam ni métissage ci wàllu koom-koom ci wàllu jokkoo ci wàllu jëflante lu mënta ñàkk la diw na fi jóge waxu caaxaan la parce que amul benn réew bu mën a tabaxal boppam moom dong États-Unis bi gën a développé mais ñaata africain ñoo fay nekk di liggéey parce que dañu soxla main d'œuvre dañu soxla science dañu soxla xam-xamu africain yi donc jaxasoo boobu ci àdduna bi mënul ñàkk partout dans le monde FMI jëflanteem ak réew yi ci àdduna bi mënul ñàkk ñëpp la ñuy jëflanteel ñun amuñu koom-koom gu ñu permettre ñu dem ak suñu jubbu bopp te ñi koy jéem a xëccu ndax beneen système bu bees bu xew ñu ngi dund ay souffrance te ñu ngi dund ci réew baax boo xam daanaka amul état gis nga naxante baaxul parce que loo man di loo man di échanger ci àdduna mënut jël palaasu jàmm euh, pour l'instant Sénégal fi mu tollagum mënut a gàntal FMI. Mhm. mënut a gàntal euh, euh, waa Banque mondiale mënul nekk c'est-à-dire nag li ñuy kaas mooy génne seen alal dugal ko ci Sénégal ba noppi wax ko fi ko Sénégal di def. loolu moo posé problème. Mhm. wala génne xaalis dugal ko ci Sénégal ba noppi ñu annoncé ci ay projet te xëy na du egg ci aboutissement ba. yooyu yëpp ay question la yoo xam ne est-ce mais est-ce que Sénégalais bi ci boppam am na baromètre pour mën a calculer ci li banque mondiale li tax mu dugal fii lii est-ce que egg na fi mu war a egg wala eggu fa donc foofu la question bi nekk euh, donc nit dafiy jóge ci wàllu koom-koom fokk ñu mu nekk discours bu ñu dàq génn ko fii parce que loolu mënul nekk ci àdduna bi ba boo demee boo demee boo demee ci réew yi ñaata doomu Sénégal nga fay fekk fi may jeexale ci arab bii nii gis nga maam caaxaan baaxul Sénégal bi dafa topp affaire business bëgg business bay taqale ñaar yoo xam ñooy ànd muy élevage ak agriculture tey ñu am tool yi di bay bu ñu soxlaa sax saaku neefere ci fas yi dañ leen koy jaay mais arabe yi foofu waroon na arrangé baykat yi nekk foofu ba bu ñu amee mbopp bu ñu amee ngooñ lu ñu man di am askan nañ ñoo leen koy jaay surtout boo awee côté boobu noonu ñun boo awee foofu ak oto hmm. booy ñëw foog nga indaale ay kàdd fagu indaale parce que côté boobu dafa am richesse ci wàllu aliment de bétail ci ay ay kàdd ak yeneen xeetu ñax yoo xam ne foofu la am mais est-ce que ñoom jéem nañu jox baykat yi opportunité sax ñu bay mbay mbay moo xam ni daañu soxla ñax mi pour seeni ay fas déedéet mais dund boo xam ni business toujours di muccu deretu baadoola loolu moo war a arab yi la mu occupé ci suuf doy na mm-hmm. sëkk de doy na sëkk ci ku xam foofu te di fa jaar. mais loolu ci bëgg a yokkaat laa xamul lan la. bëgg a jël baykat yi soppi leen ñu ndóol. nee na ñu gisuñu seen maire mais foofa na. mais maire bi mënut a bokk ci yëf yi. Mm-hmm. parce que maire yi mooy li ma leen di wax. saa bu ñu tuddee coowal suuf ciw diiwaan. seen loxo nga la ka sabab loxo maire génn ci. non xam naa leen. donc bu fekkee bokk ci daal na génn manifester yuuxu. ànd ak askan wi jàppale de. ñu bàyyi leen sama suuf waa dëkk. loolu laa mën a gëm ci lu am solo laata leen laata ma leen di libéré ah ñu waxtaan tuuti rek ci yéen a kaay groupe des médias tribune ñëw na ci mais également grand grand place ñëw na ci muy a euh, menaçant ruine yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku rawatina sa Médina démb am na bu daanu alors sous-préfet bu Dakar Plateau Djibi Diallo docteur Djibi Diallo jëlub dogal ne kon dinañ daaneel benn par benn bâtiment yi nga xam ne moom moom màgget ña fa nekk nag nañu génne dem na bay sàkku su ñoom nañu nañu génne te bailleurs yi bañ di louer bâtiment yooyu alors man dinaa ci njàmbasaale leneen ci wàllum santé mm-hmm. alors d'abord loolu liggéey la bi nga xam ne dafa incombé ñi nga xam ne ñoom ñooy le euh, euh, l' administration muy commandement territorial les préfets sous-préfets bokk na ci ñoom sañ-sañ bu ñu am nu mooy lu ñuy tuddee protection civile loolu nañ dindi sax ci ministère de l' intérieur dénk ko biram fay ak ASP mooy ministre auprès de. Mm-hmm. loolu ci njëlbeen. la war moo dina ñoom ci seen bopp ñoo war a am taxawaay bu mat par rapport ak justement bâtiment yi nga xam ne a en ruine la sa waay bakkan kenn du ko foowee bu nit ki toppee nag parce que dafa bëgg xaalis bëgg xaalis bëgg xaalis ba kër gi nga xam ne démb moo daanu waaja encaissé na keneen pour yabaat ko mhm. mais danga naan sénégalais bi ak xaalis mooy problème lan la lu tax nit ñi di daw bëgg ño mais d'accord tabax nga sa kër kenn bañu ko mettre nga ko ci location kenn bañu ko mais sa waay ni nga il faut ñuy xalaat gis nga position bi nga nekk tey mun a am kër mhm. tabax ko yàlla may la loolu am na koo xam ne mayu ko ko mhm. ba tax nga war ci mën a def yërmande mais borom kër yi na ma yàlla baal ñu ci ëpp taxawaay bu ñu am ci bëgg mais yërëm sénégalais bi xam nga ñun bokk na ci lu tax tubaab bi ndeysaan du ñu mës a yërëm te lu neex ñu ko def parce que ci ñun sénégalais la démarré. Mhm. jàppalante wuñu xoolal mbirum wàññi bi ku nekk di kaas commerçant yi way wàññi bi te yow la nga dajale ci bénéfice kenn xamul na mu toll six mois ngi nii yéen a ngi yokk di bang bangee askan wi nu leen neex ngeen doxalee bu ñu waxee ngeen wékk ko guerre euh, guerre euh, kii euh, nan la tudd Ukraine ak Russie boobu ba léegi yaa ngi dajale sa waaye gis nga àdduna bi il faudrait que ñu ci ànd ak suñu xel gis nga ñun sénégale yi bu ñuy jàppalante wuñ jàppal ma jàppal te yërëmante mais di xalaat noo naxee baykat bi. noo naxee mambay noo naxee ku néew doole pour gën a mën a naan deretam loolu mënul continuer. beneen bi moo dina gis nga lii xew ak hémodialysé yi. Mm-hmm. nañ ci wax. Mm-hmm. Mm-hmm. gis nga mambay feebarum roño yan nañ ci yàlla musal mais. il faut nga xam ku ko am nga doog a comprendre. métti ñuy jànkonteel. gis nga ñoom dañuy sonn parce que buñ ko mënut a def ñii dañuy jooy ñii seen yaram yi di met da nga leen di yërëm parce que bu ñu deful jalis dañuy sonn ak état bi nga xam ne moom nañuy nekk seen njaboot yi wër leen du ñu xam nu ñu leen def ñii bu ñu amul 65000 yooyu yóbbu clinique def ko. pour nga dem ci centre de transfusion ci centre yi nga xam ne hémodialysé yi la problème la. mais PNA nan la mën di rejeter la balle entre moom ak couverture maladie universelle ci ne woy fayoo leen ma moo tax kit hémodialysé mënul am pour ñi ñi fan. ci ay maladie toog nii mais loolu du yoon. Mhm. ci ñoo xam ne mënuñu xaar ñaata nit ñooy ñàkk seen bakkan ci feebaru roño mais danga naan après santé sénégalais yi ñorul ñii quoi parce que mënoo imaginer yow sa doom wala sa jur am feebaru roño jafe-jafe yi muy jànkoonteel ngeen koy bang bangee ci ne ah, wéy mënul def hémodialyse parce que kit bi moom moo amul PNA naan noo fay ñu maag dama yor xaalis couverture maladie universelle tamit taxaw santé nit ki El Hadj mhm. lay wax ci loolu foofu nag li mu wax dëgg la foog nga xam ku ko am bâtiment yi foog nga xam ku ko am ak souffrance mhm. bi muy jànkonteel pour mu ànd ak farlu ak taxawaay gi ci nguur gi war a def c'est-à-dire man mënuma comprendre càggante gi am ci wàll boobu xam nga xam nga aw ngab bi da ngay jéem a def effort quoi temps yi Modou Diagne Fada nekkee woon ministre de la santé <laughs> Modou Diagne Fada xaw na yàgg nguur Abdoulaye la santé mhm. après Issa Mbaye Samb si je me trompe pas mhm. wala ci Issa Mbaye Samb la woon bokk Mm-hmm. en tout cas la ñu defoon ay effort ay jéego yu amoon solo ba daloon xelu ñi nga xam dañuy def dialyse seen association bi commencé am doole mais tey ñi am jal ñi am woppi roño mm-hmm. dafa gën a yokk dialyse gën a jafe privé bi bu fekkoonte woon du privé bi ciy def sax ndimbal tuuti nga xam boo ko soxlaa am ko mais nguur gi amu ci sax loo xam ni doy nañu ko soxla mais loolu mënul nekk mm-hmm. mënul woon a dox 2006 2004 2007 te mënut a dox 2022 nguur gi na boole ci programme am jéem a indi fu nit ñi defee dialyse ak njëg gu yomb mhm. buñ ñu ko mënee def gratuitement ñi def ko nguur antan na budget bu ñu ko jagleel léegi bu si la santé léegi la mooy taxawaayam ci wàll boobu parce que jàmbat gi jëkkul tey jàmbat gi beesul mais war na jox sénégalais yi réponse parce que ñi am ñi def dialyse dañoo sonn ay sénégalais lañu ñoom ba ñu ñoo fay mais ku tawat di nga am foo fajoo. Ah. ñu la utal béréb yu ñu mën di fajoo li lay rasul xanaa sax nag xanaa sax bu ñu jàppandalee privé yi ñu def ay investissement yu mag ñoom mën nañu gàddu sax ñu am jalis mais privé yi am sañ-sañu def ko sax bariwul Sénégal. Mm, mm, mais ñi tawat duñu leen faj. lu am solo jaajëf. tey cri de cœur euh, kenn présenté fi résultat nga xam. jaajëf la député du peuple dañ ci continuer ah ci tënsi dañ ko waxtaane waat parce que ñooñu ñu a taxaw lañu rek mooy émodialisé yi dama ne la rendez-vous 89 point 7 ci kanam tuuti am na feebar yoo xam ne il faudrait que impérativement ñu taxaw ci gis nga lii di cancer jabet jërëjëf di per euh, nan la tuddati AVC bi ak feebaru roño juróom yii il faudrait que état bi jël ci teg def ci fulla ak fayda nit ñi dañoo sonn incha allah état état mi ngi suivre ah. te nañ ci dinañ ci bàyyi xel bu baax <laughs> rendez-vous bi demee kon le pertinent Mamadou Fofana